والقلم وما يسطرون jërëjëf loolu am na solo lu ñu may ci temps duñ ko xeeb dañuy woo sëñ Maxtaar Kebe euh, bu ko defee mu ñëw. sëñ Maxtaar Kebe ko ku ko xam-xam ko ci. mu ñëw ci yaatu mbindu alxuraan. Mm-hmm. mu ci liggéey liggéey bu am solo moom mooy jiite yaru ak yare ñu bari di ko topp ci seen YouTube yaatu mbindu alxuraan mu ñëw nag moom itam di taxaw ci li jëm ci wàllu boole ndax boole. yàgg nañ di ko wax mooy li nga xamante si ni alxuraan bu fekkoon ab tool la mooy li nga xam ne moom moo koy ñag sëriñ maxtaar itam suñu borom bi séddu ko si loo xam ne lu kawe la sëriñ maxtaar bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu ñëpp tey siyaar ñëpp tàmbalee nuyoo bi ak siyaar bi ci alaaji sëriñ sekk mi nga xam ne moo waral jataay bii tey te defalu ko lu dul liggéeyal alxuraanul karim di ci teg ñi nga xam ne ñooy commission scientifique bi doon ci yëngatu ñoom itam ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar di ci beral ab siyaare nag Serigne Fallou sekk mi nga xam ne lu bari ci loxoom la tegee mu ci yëngatu di nuyu it bokk yi nga xam ne ñoo jóge Touba rawatina sunu sëriñ si ñëpp ñu ngi leen di siyaare xam naa ñu jëkkanteeg waxtu wi ci lu néew njàmbaarug mag ñi nag danaa leen ko tënkal ci ñaari baat door leen a indil nangami boole ndax. dafa am kaang ma doon tari ne xalaqal insaana min salsaalin kal fa xéeri daan ne kal fa xéeri kal njombaan kal fa bayaan kal sidda laaya yar kal fa xéeri ne fa bi ayee ngoog duma ko laal marajal bahrayni yaltaqiyaani baynahuma barzaqun laa yabxiyaani fa bi ayee ngoog duma ko laal ba tabaarakas mu rabbika dil jalaali wal ikraam meneen mag ma ca des na ko boppub aayab fa bi ayi bu ne danaa wax leetar bu jëkk ba muy xaraf bu jëkk wa mooy na li naan xaramayu wa yasa ya yu fafa yu hawazu fii fii mu fii kahawa mu fii fii hu lam muta tabarakasmu rabbika dil jalali wal ikram kon tàmbalib aayab rahmaan bu ne andi naa ko mag ñi ne faddaaratum laan saddaakum naar xatta ida daarakoo la araaf saddaakum ñuuleen balit daaraka namli saddaakum naar lawla an tadaarakahoo ca qalami ñuuleen laa ko jam-jam daarak la liif bi jikko liif ga daa xonq ca bàqara ñuuli ca laaraaf xonqiwaat ca nëm li dal di naar ca euh, jam-jam ba mu wax léegi kon mbokk yi ñooñu mooy njàmbaaru mag ñi bi xulaamin alimin yat la ñëw ci alquran bi xulaamin alimin yat ngaax nga xijiri ngaax zaariyaat ngaax mooy ak ayin mu ne bi xulaamin alimin yet ngaax nga ijiri ngaax saariyaat tongu ba jób saafaat xalimun ja ca saafaat ku ko ku ko ku ko da ngay daanu mu ne doonii gay naa ko naayo gay naa ko mooy noon gi ak ki bi day yaa gi day dellu ca ginnaaw loolu mooy gay naa ko su ca noon nga yemee nag ak yërut bi jukkoo du gay naa ñu ne doonii gay naa ko naayo fakii dooni hóod min dooni yaar lisra eeg njenge wa ana bu dooni jaal jaal mooy yaasin kuuy balaa naan daago kuuy balaa naan daago kuuy mooy xar mu mag day romb xar yépp daago dem ca mbalkama ñu ne kuuy balaa naan daago yabun muy fukk ak ñaar xaadiril masjidi laan muxilli saydi njoogu mojisillaahi yaar la yépp nga baraan muxsil kéefiriina ma nga baraan uufil kayla mbargaan afillaahi shakkun birima illaa aati rrahmaani mareem walmuqiimi salaati xajji muhliki lquree qasas aydi nnaasi ruum wa aydi lmuminiina ca xasri kuy balaa naan daagu jay naara kom naar juróom jay naar mooy ak raseyin tak naar tege ca lif ga kooku daa ku ko ñuulal daanu jay naar akum naar juróom ñu ngi koy tënkee mita sa mifa mina zahidina mbargaan tazawaru ak zakiyatan yépp nga njenge min hamasati min hamasati nga moomin fasajirati ca baam baam mooy saafaat léwru goote ndaanaan samaana léwru gi mooy ak bàmm goote tanwiinul ndaanaan la ku ko tanwiin daanoo mu ne léwru goota ndaanaan samaana ñu ngi koy tënkee moo a ili bawaatamu musaddiqu lan am ixwat alidu hóot ixwatu mbargaan lisaanu nahli bayinatu tahi wa masajidu hajji taxiidu majid mundiru ca naasiat jekk na lool na nga ne ko run xis juróom bokkul bindiin hasiran tongo ko riidu l'israi asiran gañja ko jorngel furqan hasirun tongo ko jorngel malik mulki hasirun yarla bañ daago qamar daago mudathir man al kadab al asir hasirun hasirun jooju sañal mën a xadal man nu mu ko waxeeti ah, déedéet asirun ay ila mursilu naaqati raahi nganjak naar samaana ngañ gi ak ayin naar liif ga ca kanam la ñor di day eh, da da da da day naar yaar laa nag jigéen raakihoona yaar laa nag njoogu raaxiboona yaar baraa nag xalam raaxoona yaar muumi nag saala allah sidda laam mahun ñeent fukk ak juróom yuqiima laan yuqiimaati laan tuqaatiloo laan nuqaatila laan tartaaboo laan taktuboo laan tukallima yaar galaay laak mareem nahbuda galaay noomina galaay yajcala galaay xawfun galaay tuqusitoog taxooloo yépp nga jigéen tax yaar la jigéen ak njoogu ala takkoona yaar la njoogu ak xijiri tusrikoog taakuloo yépp nga lan am tasjuda lan raaf yuadibahum lan faal alaa taxaloo ak alaa yejidoo yépp a nga baraan alaa tax bu doo juróom la ñu ngi koy tënkee huyo li taala hóot yunus lisra'i tafsil lahqaab alaa na tawakkala birima alaa tattaxidu lisra'i allaa taxsani ak allaa takuuna yépp a nga mareem allaa yarjia allaa tattabiani allaa tajooa yépp a nga tëhi allaa yakoonoo nga shuara allaa yasjudu ak allaa taxaloo yépp a nga nëmli allaa taxaafoo nga tafsil tasiru naj mi tot xaw bayaan allaa tunfiqoo ak allaa yaqdiroo yépp nga xaddiit allaa yezakkee caat ma ca abbas mbokk yi bu doyut ma dolli li fi nekk du jeex asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah waaleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Sayid Maxtaar Kebe mu Cheikh Saliou Mbacké yaatu lool nag ci xam-xamu boole macha allah ñu ngi lay jaajëfal di la ndokkeel da ñaan borom bi tabaaraka dolli xam-xam bi anta bi ni'mati rabbika bi majnun